mbokk internet ci dalee nag jàmm coowal Dieyna Baldé ak Bril ba tey ji nag ñu ngi ci suite bi ndax Bril nag daal dinañ retrouver li nga xamante ni mooy ñeenti clip vidéo ya ñu supprimé woon ci chaîne YouTube am Dieyna Baldé moo defoon lu ni mel loole nag di xibaar boo xamante ni daal dinañ koy xamle ndax moom Bril ci boppam nag daanaka bi seen bi amee muy vol de téléphone portable am gi nga xam ne daanaka nekk woon sax ab cambriolage lu dul ab nag scène boo xamante ni lépp nag ku ñu wax Pape Ba ñoo ko daal di orchestré daal di jël lép naka daal di koy nag euh, togg ba mu ñor euh, jël téléphone bril bi daal di koy nag sàcc ba noppi di ko chantage moom Dieyna Baldé mi nga xamante ni moo nekkoon ci ginnaaw euh, boobule cambriolage supposé nag daanaka ci mer ak nag ay photo yu mu gis ci biir téléphone bril di wax ne nag bril daf ko doon trompé il était pas fidèle moo tax mu meroon moom itam daal di décider ne ne daf koy daal di nag yàkkal benn que nag ay mbirum sextape la nag bu moytu dana ko publier yemu ca nag dafa daal di itam dem ba ca euh, chaîne YouTube bi nga xamante ni Bril euh, moo ko moom jël ñeent ci ay clip vidéo yi nga xamante ni nag moo njëkk euh, populaire ci chaîne YouTube am boobule moom Bril jotoon na ko publier la Dieyna Baldé jël supprimer ko ci compte bi te daanaka nag bokk na ci yoo xamante ni ay millions de vues la am mënoon may Bril sax xaalis bu dul jeex mu doon ci fayeeku moom Dieyna Baldé daal di koy nag xamante ne euh, mere woon na ko moom Dieyna Baldé daanaka sax a coowal Bri ak bile page euh, dina ko retourner lu yàggul dara ndax nag ñu ngi xamle ni euh, dafa da wax nag ki nga xam ne moom mooy Baba Am di nekk nag arrangeur producteur tam daal di ne noppi na ngir daal di relancer carrière bu Dieyna Baldé ginnaaw ñaari maison de production yi nga xamante ne jaar na fa te taxul nag mu am lu mu bëgg ci carrière musicale muy nag ca Gamboul incorporation bi nga xamante ni nag Mamour Diop Isaac moo ko fa dalaloon ginnaaw nag passage am ci seen petit euh, gàlle ak i nag label bi nga xamante ni moo yor Abiba biile yoon itam fi nga xamante ni nag moom mooy euh, ca nag euh, bril micro produit daanaka nag ci production yu mujjee daal di amal di clip way yu mu mujjee amal lépp nag moom ci naa balde ki nga xamante ni nag moom mooy Baba di ak kii di Job sa brain ñoom groupe Job sa brain itam ne noppi nañ ngir daal di dem wooyu Dieyna Balde naam sax ci ay déception kese la daal di nekk am ay obstacle yoo xamante daanaka moo daal daal di euh, émaillé li nga xam ne mooy dundam ñu ne noppi na ngir daal di relancer carrière am jaarale ko nag ci euh, li nga xamante ni euh, moom mooy coow li ngir tànd ko nag ñoom seeni loxo loolee la ñu daal di nag le ba kii di nag am di ne nag moom noppi na ngir jàppale bu fekkente ne Dieyna Baldé gisu ci benn inconvénient mu daal di koy nag jàppale relancer carrière musicale am nag gis na a benn talent ci moom waaye nag dafa fekk xale bi ci boppam moo daal di soxla encadrement te moom bés bu koy jàppale itam day dem ba gis ji